مقافي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القافي وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تغفر لي بما جملة المآسي أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فرضا الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله fil alihi wa sahbi wa man wala wa zakki lubbi waftahan rabbi liya fathan mubinan la yura li misliya waj'al kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ca nuyoob lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di am yéene ju sal ngir dellu siwaat ak yéen ci liggéey bu tedd bu màgg bi nga xam ne sumboon nañ ko te muy ay leeral yoo xam ne day jëm ci xasida gu tedd gi Sëriñ Tuubaa tuddee muqaddamatul xidma fi salaati ala nabi rahma aw miftaahu saadati fi salaati ala xayri saada di ci ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ñu daja ceeg ngërëmal sëriñ bi ak mboole mébét yoo xam ne ñu ngi koy mébét ci suñu diggante moom yàlla nañ ci am lu foo ko njort te daraje muqaddamatul xidma bu ko defee dañuy daal di ñëw rek fas yéene jublu ci leeral salaatu yi nga xam ni sëriñ Gueye mbokk mu baax mi dugal na ko tey ñu commencé sëriñ bi di wax ni allahumma yow sunu boroom salli na nga dolli xéewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlaana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad muhammad nag boo ko déggee mooy koo xam ni mooy ku ñu sant kuñu ñu lu ay jëfam ak waxam kooku nag boo ko bëggee xam mu ni saaxibil xadibi kooku mooy borom jaasi ju ñaw ja kooku mooy borom jaasi ju ñaw ja moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga ak mucc nag alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa sahbi ak saxaabaam ya bu ne ñoñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag mooy képp koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yow da ngaa bokk ci ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa bu ne wa sahbi nag mooy saxaaba yi nga xam ni ñoo jamonte ak moom gëmoon la ko yàlla yónni woon ca ñoom ñu dëggal ko ànd ak moom ba taxaw mu ne yow sunu borom na nga dolli ak mucc ci yonent bi sallallahu alayhi waaye na nga ko dolli ci aw xeetam mooy képp ku bokk ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa saxaab yi ak i saxaabaam wajaal nii nag ma def man yow man man mii di borom Tuuba Cheikhul Xadim al ma tey jii bi jaahi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam naa ji yam may aji mucc danga ma def ma doon koo xam ne damay mucc waaye maax su man may ku ñu musal maax su mooy koo xam dañ koo dañ koo aar dañ ko protéger ci def bàkkaar maax su may ku ñu may ku ñu musal waaye musibu may aji ma doon koo xam ne aji jot laa lépp loo xam ni mébétoon naa ko sama diggante ak suñu borom ak sama diggante ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem lu baax allahuma yow sunu borom salli na dula xéwal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlaana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne awtura mooy muhammad saaxibil xadibil asfari kooku nag boo ko bëggee xam dëgg itam mooy borom jaasi jooju nga xam ni dafa ñaw a ñaw a ñaw ba lu mu laal rek wala ku mu laal rek nga daal di daal di faatu wala nga dagg waaye mun a jaasi ji nag boo ko bëggee xam melokaanam al asfar la maanaam jaasi ju mboq la woon mboq moom la war a di wax mooy zone wasalam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa sahbihi ak saxaabaam واعصم لي نعم nang ma نعم نعلي bijaahi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minal xuruur ci ak waru yow suñu borom nag ma ñoŋal nag ma musal ci lépp loo xam ne ak waru la ndax daa waxoon ni ca masaalik daa waxoon ni summa salaamatu minal xuruuri min ashabil asyaai fi duhuwi sëñ bi nee na mucc ci ak waru mooy li gën a mooy li mooy li a jafe kon nag ma musal ci daraja yonent bi nag ma musal ci ak waru wala xarari ak ware yàlla bu ma waru yàlla bu kenn waroo ci man allahumma yow suñu borom salli naa dolli xéwal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibi kay borom mi borom mi xawli wax ja kay borom wax ja waxi lu mu waxoon laa ilaha kay borom waxi laa ilaha illa allah te mooy amul benn buur laa ilaha mooy amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu gay di indi njariñ di bijji ay njariñ ñàkk ga jaamu ko di indi ay loraanga illa allah ku borom. wasalam na nga doole ak mucc nag alayhi moom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi ak ñoñam ya mooy képp ki wax ashhadu an la ilaha illallah wa sahbi ak saxaabaam ya wajaal na nga def na def bi jaahi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam axira kalaami sama mujj wax man borom Tuubaa defal sama mujju kaddu sama mujj wax mu nekk la mu nekk laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam muhammad mi nga xam ne rasulullahi la mooy ndawal yàlla la allahuma yow sunu borom salli na nga a xéwal ala sayyidina te sunu sang ba wa mawlaana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne mooy muhammad saaxibil xadam yi kay boromu jiitu ga waaw ka nga xam ne moo jiitu ndax min def yëpp sunu borom mi ngi leen sàkkee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mooy alxadam kon kon moom mooy ki jiitu ñëpp te ken te kenn jiitu ko ndax moom la ñu tuddee imaamul anbiya mooy mboolem ku yàlla yónni ku ne rek mooy sa njiit wasala na rajola ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa sahabi ak sahabaam ya wa taqabbal na nga nang na nga nangul lii ñal ma bi jaahi ci daraje yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jumlatal xidam yi mboolem liggéey ya mboolem xidma mboolem liggéey boo xam ne liggéeyal naa ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey ko borom borom bi subhanahu wa taala yow suñu borom nag ma nangul liggéey boobu yëpp allahuma yow sunu borom sali naa doon xéwal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam saaxibil kawsar kay borom dexu kawsar ga waaw ndax yàlla moo ne ko woon inna aataynaaka al kawsar et eh, yonent maa may ba may la dexu kawsar wasarif na nga jël ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam yo wa saabi ak saxaabaam yo wajaal defal yow sun borom bi jaahi ci daraja yonent bi salaa sallam kullama lépp loo xam ne sadara feeñ na min nii ci man kal jawhari nga def ko mel ni su wu gànjaru waaw lépp lu xam dafa rote ci man lépp lu feeñ ci man yow sunu borom loolu na nga ko mu mel ni su wu gànjar wu rafet wu taaru allahuma yow sunu borom sali na nga doole xéewal ala sayyidina ca sunu sàng ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne awturam mooy muhammad saaxibi liwaayi kay borom drapeau ba ndax dafa am ñetti liwaa dafa am la ñu tuddaa dafa am la ñu tuddaa liwaa ul liwaa ul xam liwaa ul maghfira liwaa ul liwaa sukuri ak li waa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñeenti drapeau yooyu rek moo am ci lislaam kon drapeau nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it boo ko bëggee xam nee na mooy borom drapeau ba ba nga xam bu ëllëgee ba rek mooy taxaw waaw. wasalam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam ya wa sahbi ak saxabaam ya wajaal wajaal nii nang ma def bi jaahi ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahmudan may ku ñu gërëm lu may ku ñu gërëm lu man borom Tuubaa dafa ma doon ku ñu sant. ku ñu gërëm la fil ard ci suuf wa fi samaay ak ci ak ak ci asamaan dafa ma doon koo xam ne ku ñu gërëm laa ku ñu sant laa fii fii ci kaw fii fii ci suuf ak ci ak ci kaw asamaan allahuma yow sunu borom sare na doole xewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne awturam mooy muhammad saaxibil mahsari kay boromu dekki ga ka nga xam ne wax na ne bu ëllëgee man awal man tan saqul ardu mooy ki nga xam ne moom la suuf si di njëkk a génne mooy ki njëkk a génne ci biir suñu suuf kooku a saabil maxsar mooy borom dekk ga moom yonent bi sallallahu wa sallam wasalam na doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam yi wa saabi ak saxaabaam yi wajaal nii nag ma def wajaal nag ma def bi jaahi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam za bu sari may borom mbégte za bu sari may borom mbégte fi daare ni ci àdduna ak alaaxira allahuma yow sunu borom sali na nga doole xéewal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam soo saaxibil madina kay borom dëkk ba di al a munawara nga xam ne moo soppitur wi bi ndax madina mi ngi juddoon yasriba yasriba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoo tuddee ko tuddee ko al madina mooy ville bi dëkk bi wasalaam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa sahbi ak sahabaam ya wa jaal defal nafsi sama jëmm wala sama bakkan masuuna muy luñu muy muy lu ñu ñoŋal bi jaahi ci jërëjëf yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye raadiyatan mu doon lu ñu gërëm waaye mardiya mu doon lu ñu gërëm lu waaye mardiya mu doon lu ñu gërëm lu daf ko mu doon lu gërëm ak lu ñu gërëm lu ci daraja Nabi sallallahu alayhi wa sallam allahuma sunu borom sali na dula xewal ala sayyidina te sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne aw turam mooy muhammad saaxibil mixfari kay borom njëggal ga ka nga xam ne moom la yàlla waxoon ni ko li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaqar yàlla na ko jéggal nañ la sa ñaawtee fi njëkk ak yu mujj waaw ak yi nga xalaat ak ak yi nga xalaatul waaw te tey bu ñu ko waxee jamono boobu la gënoon a jaamu yàlla Seydina Aysa ni ko xanaa suñu borom jéggu la sa bàkkaari njëkk gi mujj mu ne a afala akunu abdan shakura xanaa dama doon jàmm sant suñu borom ci xewal boobu ma defal wasala na nga jëlee ak mucc nag alayhi ci moom waala alihi ak ñañame wasaabi ak saxabaame waq xër na nga not na nga na nga not lii ñeel ma bi jaahi ci daraja ne du salaa salaam as seytaana mooy nanga ma notal seytaane wal jinna ak jinne wal bashara ak ak ak mindeef ak nit nag ma notal pexem seytaane ak pexem jinne ak pexem doomu aadama allahuma yow sunu borom salli na nga dolli xewla ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin ka nga xam ne awtura mooy muhammad saaxibil maghnami kay borom màng ga ay xewal ka nga xam ne mooy borom màng ga ay xewal borom mooy borom xewal yi tasaaro yi wasalam na nga dolli ak ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñam wa saabi ak saxaabaami waxin yi nag mu wattu mooy nag mu musal bi jaahi ci daraja yenent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamma mooy njàqare wal ma mooy mooy naqar wal wakam mooy mooy mooy mooy njàqare gu tar alhamma mooy njàqare rek waaye bu dee wakam nag mooy njàqare gu tar mooy al al alxusnu sadid xamm nag mooy mooy mooy jàq xamm nag moom bu ñu joxee mooy xol mu ne ko yu yëpp daal nang ma ko fegal yow suñu borom ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee ñu ngi taxalu foofu di nga gënd ko yeneen salaatu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi واجعلني بجاي خميل اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد اللزاعي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن معي في كل شيء بجاي علي اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد ليس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجايك الخير